asalaamaaleykum mbokk yi ñu suivre sur Wassare Lamb Wassare TV di leen bëgg bu baax di leen ziar di leen baalu àq te di leen baal kon ah, ni ñu koy defee rek à chaque fois seen émission jàngatu làmb tey ñëwaat na ñu fas yéene waxtaan ponk bu am solo ndax nee naa leen ñëpp xam nañ ni instant bi li nga xam te ne moom mooy actualité ndax ñëpp xam nañ ne actualité bi moom mooy ah, CNG gis nañ nag wax dëgg yàlla li ci am yëpp yëpp yëpp yëpp mais ñu fàttali mbokk yi rek neen la 31 octobre incha allah si la di ah, Alioune Sarr la mandat jeex 26 ans de pouvoir kon ni ngeen koy waxee rek euh, c'est trop mais am nañ nag cette personnalité yi nga xamante ni tey euh, ñoom ñoo ko bëgg a ku ci mel ne Keba Kanté ñëpp xamoon nañu moom bésam moom euh, yëfam dafa dafa fës ku ci mel ni Tyson dégg nañ ni nag waxut. mais nag euh, gars yi dañ ko cee boole ci lim bi ku ci mel ni suñu Maysa Ndiaye euh, Cheikh Tidiane Ndiaye euh, ki nga xamante ne moom mooy géo géotechnique ñooñu ñëpp nag dañ leen indi kenn ku nekk ci fonction bi ngeen nekk tey nag ñuy waxtaan comme thème ndax gis nañ bërki Dembo Ndiaye suñu papa Kati mu nekk ancien gloire nekk ba pare écurie Ndakaaru li mu wax ci li nga xamante ni moom mooy dana dana fédération s'impose moom loolu nag nee na fédération lañ bëgg ñu gis ne suñu père Bekay Mbaye borom BMTV ah, moom tamit li mu wax mu ne CNG bi eh, moom bu bu eh, moom mu ne. CNG bi la bëgg ñu maintenir ko ba ci kanam yéen ñu ñuy seetaan sur Wassare Lamb ko ni ma ko waxee rek nee naa leen yéen yéenay roi yéen yéenay reer ndax am ngeen ci li nga xamante ne moom mooy xalaat mais nag dañoo seeti woon ñi nga xamante ni ay expert lañ ñi nga xamante ne dañ leen a xam ci làmb ku ci mel ni malik Ngom arbitre am na lu mu ci wax ku ci mel ni ki nga xamante ne moom mooy Balla Diouf euh, lutteur mën nañu wax ne lutteur parce que moom moo nekk euh, entraîneur euh, jàmbaar wrestling academy mais nag dafa ñëwaat ci làmb ji bien vrai que ne toogoon na. Euh, boo xoon day bàyyi mais nag ñëw nañ mais loolu moom sax dina ci xaw a leeral tuuti ak ki ci mel ni ki nga xamante ne moom mooy Assane Waalo bi nga xamante ne journaliste la bi nga xamante ne day bay waaram ci liggéey bi ak ki nga xamante ne moom mooy Babacar Diom ñoon ñi nga am ci li nga xamante ne ñoom ñoo ñoom seen gis-gis liñ ci liñ ci xalaat mais ba léegi yéen ñi ñuy seetaan nee naa leen di ngeen di cliquer rek soo leen cliquer ñun di nga xam li nga xam am seen réponse aca kàggu moom moo nekk ci réseau bi ñu doxal te ñëwaat bien sûr bu yéen ñuy suivre sur Wassare Lamb TV kon ni ñu ko waxee woon sànq rek yéen a ngi ci émission euh, jàngatu làmb ba tey euh, mais kàggu euh, dañuy ñuy fàttali gars yi rek thème bi ne leen fédération ak li nga xamante ni moom mooy CNG ñuy fàttali gars yi tamit ba léegi CNG li muy signifié ñëpp xam nañ ko comité national gestion de la lutte loolu mooy CNG ba léegi dañuy déglu suñ père wax na ci père Kati Diop wax nañ wax na ci léegi dañuy dugal ki nga xamante ne moom mooy Malick Ngom ban gis-gis la ci am après tamit ñu ñëwaat. Euh, asalaamaaleykum waa wasaare waa wasaare lamb euh, di nuyu internet yi nga xam ne ñu ngi leen di suivre di rafetlu liggéey bu liggéey bi nga xam ne yéen a koy def euh, lépp ci lu jëmmale lamb kanam waxtaanu CNG ak fédération sama xalaat bu gàtt mooy Sénégal mos na fi essayé fédération. dellusiwaat ci CNG gis naa Niger fédération la ñu amoon fekk si nañ nekk CNG mais dëkk yu baari quatre-vingt-dix pour cent dëkk yëpp yu ñu xam ni niveau Afrique euh, fédération la ñu am ba ci Gambie bi nga xam ne moo ñu gën a jege li tax ñu bëri bëgg fédération fédération daf day am loo xam ne daf koy regle parce que bu ñu amee fédération coowal kan mooy jiite fédération bi dina aw dina wàññeeku parce que élection lay doonati ci élection yi ku gagné rek ñu ne yow yaa nekk président bi ba mandat sangam jeex bu mandat ba jeexee tamit ñu defaat élection ah képp ku mën a samp ndërn nga samp après ñu voté loolu problème boobu dina réglé parce que dootul nekk loo xam ne benn nit mooy tànn ki jiite. waaye ñi nga xam ne ñoo ŋànk làmb ji déjà ñooy tànn seen njiit loolu benn problème la boo xam ne fédération dina ko régler mais problème bi nga xam ne fédération mën na am du ko mën a régler à moins que mu am structure d'exception ci biir fédération bi fédération day organiser ay championnats nationaux bu championnats nationaux ñu organiser ko fédération mooy organiser dootul nekk promoteur ça veut dire que le métier de promoteur mën na tendre à disparaître am na nu muy demee mën na bañate am ci côté championnat boobu manager mën na amati dootul exister ci côté championnat boobu mais championnat boobu ci dëkk yi nga xam ne ñoom ñooy def championnat lutte olympique lay doon amaana du soxla manager fédération dina mën di génnee ci ay forme di organiser un championnat national boo xam ne ay équipe ñoo ciy jongante équipe yooyu fan la ñuy jóge ci structure de base yi nga xam ne ci région yi la ñu ne région bu nekk day am ay structure de base yu mel ni district yu mel ni ay ligue ligue yooyu ñu installé ko ci région yëpp ñoom ñooy dajaloo nekk lu tudd fédération loolu dina régle benn problème euh, mais boo xoolee composition suñu lamb Sénégal écrits yi nga xam ne ci lañu war a basé wu quatre vingt pour cent écrits yëpp ñu ngi benn région muy Dakar boo bëggee jël Dakar def ko benn ligue euh, dina am dina am ballot balotage ballotage bi dina déséquilibre dina am déséquilibre bu métti parce que boo compare région bu toll ni Dakar ak ay écrits yu dul jeex ak région bu mel ni Kolda ñuy dute est-ce sax am nañu écrits donc loolu. Euh, seen jongante dina déséquilibré trop mais lama xalaat xëy na mu am fédération boo xam ne il va s'adonner dina dina joxe boppam ci côté organisation lutte olympique parce que bu ñuy dem Afrique représenter réewu Sénégal ci lutte olympique boobu la ñuy la ñuy def donc dafay laaj fédération am di organiser championnat nga xam ne athlètes yi nga xam ne ñoom ñooy dem représenter Sénégal dinañ tàggat seen bopp balaa ñuy dem ci championnat national bi fiy am. loolu dina régler keneen problème léegi nag ci biir fédération bi mën nañ am ay structure de base ah, mën nañ am des comités ou bien des commissions spécialisées lu wàllum bëree door ak wàllu bëree simple parce que loolu boo ko seetloo Sénégal la am ndegem Sénégal la am nag il faut ñu am une fédération particulière fédération boo xam ne ci biir lutte olympique bi day am pàcc yoo xam ne bëre simple lay am pacc boo xam ne bëre dóor lay gérer man su boobaa buñ ko defee man je pense que war na mën a nekk mais nekkul loo xam ne nag dafay xëy rek sotti mënul xëy sotti parce que fédération liggéey boobu balaa muy sotti il faut liggéey bu ko jiitu installer ay structure de base yi au niveau des régions muy lii ay district ay ligue ak yooyu il faut ñu installer ko ba pare balaa ñuy xalaat a jëm ci fédération mais mënul nekk loo xam ne rek ci sama xalaat du gàtt day xëy xëy rek sotti loolu daal laa ci amoon xalaat. Euh, ñu bëri am na luñ ciy ragal mais mën nañ couper la poire en deux maintenir fédération bi mais ci biir fédération mu am ay domaines yoo xam ne ñii dañuy gere bëre simple ñii dañuy gérer bëre door su boobaa promoteur dina continuer exister euh, manager dina continuer exister te terewul fédération dinañ mën di doxal li nga xam ne moo dox ci wàllu lutte olympique di organiser ay championnat national mais taneef bi na continuer nekk loo xam ne Euh, li ngànk làmb ñoo koy def loolu daal mooy sama xalaat bu gàtt bi ma bëggoon sànni ci ci di leen jaajëfal. gannaaw ba ñu dégloo ki nga xamante ne moom mooy Malick Ngom mu nekk koo xamante ni chaque jour day sonn suñu yëf di ko ñaanal nag bu baax baax kon li may wax rek gars yi nag nañ ko li nga xamante ni moom mooy euh, daan yi wax dëgg yàlla Malick on a besoin de toi yéen arbitre seen kanam ci boppam la ñu tàmm neexul ba neexul daal mais képp ku fi mënti toog rek na njëkk a euh, première kii moom na indi arbitre yi di ko waat bu baax a baax kàggu gannaaw ba ñu jógee ci nga xamante ne moom mooy Malick nag moom dañuy déglu ki nga xamante ni moom mooy bala Diouf borom jàmbaar wrestling académie ba pare bala Diouf lutteur ñu déglu ko lan la wax ci li nga xamante ni moom mooy CNG ak fédération te ñëwaat. waaw salaamaaleykum waaw damay dëggal rek li père Amadou Kati Diop wax ci une fédération impose waaye euh, une fédération donc euh, y a des mécanismes donc euh, pour ñu dem ci fédération faut organiser fédéré écurie yi fédéré entraîneurs yi. qui va organiser euh, les managers donc organiser wat la lutte et puis ñi nga xam ne ñooy diriger làmb bi tamit wàcc vers les écuries et les écoles de lutte et de les informer et tenir vraiment euh, une assise nationale de la lutte pour de vrai nag pour de vrai quoi bu ko defee ñu xool ci yan yoon ak yenn mécanisme lañuy jaar pour dem ay fédération maanaam kuñ fi fal d'ici deux ans war na liggéey euh, arrache-pied pour fédérer tout ce la lutte muy fii ci réew mi ak ci région yi ba nga xam ni tey dinañ am ay ay ay réponse que ni yu wóor que ni kat mun nañ dem ci ay fédération d'ici un an à deux ans donc voilà comme li père Amadou Kati Diop wax une fédération s'impose mais il faut que tamit ñu fi nekk ñu am projet wu dem ci fédération pas ñu nekk fi rek pour euh, pour voilà ne de waaw fédération mënut a nekk mënut a nekk lu mun lu ñu organiser wul du nekk donc une fédération foog ñu organiser ko ñu fi nekk ñu may leen temps ñu liggéey vers ça donc man daal loolu laa ciy yokk. Euh, gannaaw ba ñu dégloo tamit Balla Diouf euh, dañuy euh, déglu ki nga xamante ne moom mooy Assane Waalo Assane Waalo nag nekk naataango ci liggéey bi moom it am na ay kii nga xamante ni am na ay leeral yu mu indi ci entre fédération tamit ak li nga xam xamante ni moom mooy CNG ñu déglu ñu déglu ko kàggu te ñëwaat. Fatma maa lay remercier bu baax a baax a la encourager si liggéey bi ngay def yaa ngi def liggéey bu rafet ci làmb ji wane nga ne làmb du affaire góor kese jigéen ñi tamit am nañ si seen waar te yaa ngi koy béy bu baax a baax a baax di la remercier également si li ma invité pour que ma réagir ci question yi ok comme ni nga ko waxee am na benn parti boo xam ne nii ci làmb ñoom fédération lañ bëgg ñeneen ñi tamit ñoom CNG bi leen bëgg mu continuer mais man sama xalaat bu gàtt mooy que ne Fatma. fédération mënagul am ci làmb xaw ma ci dans l'avenir mais actuellement ak ni làmb di doxee fédération munu ci am mënu ci am parce que pour que fédération il est nécessairement que ñu am ay ligue au niveau des régions ligue yooyu ñoom ñooy coiffé département yi département yi jiital communes yi communes yi jiital village yi c'est-à-dire noonu lañ koy hiérarchiser quoi euh, euh, noonu lañ koy hiérarchiser mais boo xoolee lamb instant yi ban problème la am CNG lañ fi def CNG bi chaque département am na fa benn comité régional de gestion comité régional de gestion yooyu dañuy fal benn président ci kaw ci ci ci bopp bi président yooyu chaque at xanaa chaque année bu saison bi jeexee di nga dégg ñu kaas que ne buy CNG bi di jël décision du leen woow da leen di yëgal rek mais ñooñu boo leen boo boo bëggee fédération kon xoolal fédération bi nu mu nu mu nu mu war a organiser woo je pense que ne loolu problème la euh, beneen beneen beneen beneen point bu ma soulever mooy que ne làmb instant yi lu koy lu koy lu ko lu ko gën a lu ko si lan la wu ci écrit yi écrit yi majeure partie écrit yi fan ma amuñu amuñu légaloon au niveau du CNG dañu exister officieusement nii mais légalement amuñ papier yoo xam ne nii wane na ne ñoom écrit bu bu bu bu bu légal la. donc :fra boo bëggoon def fédération ñan ñooy voté ñan ñooy voté :fra %e euh, kii bi ñan ñoo ñan ñooy teg président bi ñan ñooy voté président bi xam nga loolu du am parce que :fra euh, %e président :fra écurie :fra yi bay bay bay fal nit [r] également :fra %e euh, fond bi fédération di di di di di di kii parce que fédération :fra bu amee rek da ngay da ngay détaché wu ci état par exemple xam CNG état moom mooy jël moom mooy fal président bi ne kii laa fi teg en tant que président CNG mais boo nekkee président état bi da ciy génn loxoom yow yaay defal sa sa sa sa fonctionnement bopp yow yaay wuti say fonds di di doxal say activité imaginaire làmb boo bëggoon def fédération ban fu ñu jëlee ay fonds ba di ko doxal seen bopp football bi rek nim nim mel amuñu amuñ seen fond bopp pour doxal seen seen activité bopp boo xam la euh, bu bu fédération amee ci làmb je pense que daal fédération jotagul peut-être dans l'avenir mais ak ni làmb doxee informel bi nekk ci làmb actuellement non làmb mënugul am euh, fédération loolu daal moo di doon sama xalaat merci beaucoup suñu dernier intervenant nag mu nekk ki nga xamante ni moom mooy Babacar Diom borom Leewtoo mu nekk koo xamante ni chaque moom it dañuy am contentement pour waxtaan ak moom am na nag ay leeral li mu indi ci li nga xamante ni moom mooy fédération ak CNG d'accord na wala d'accordul nañ ko déglu te ñëwaat. waaw Fatma maa ngi lay di la ziar ah, di nuyu internet wasaare yëpp ah, di leen ñaanal jàmm di ko di wax que ni li nga ma laaj muy ci diggante euh, fédération ak CNG maanaam bu ñu nee fédération li ci Amadou Kati Diop wax. am Kër Diop nag ku ne xam na ko écurie Dakar c'est l'entraîneur de Yékini ak kan suñu père Bekaay mbay bu 2STV wala bu BMTV moom tam gis-gis bi mu ci amee bu dee Amadou Kër Diop moom fédération la gis suñu père Bekaay gis ne moom mën nañu fi yor seen ba ci kanam loolu nag ay xalaat la rek. maanaam ay xalaat la ci kan nit ku ne da nga bokk ci mbir boo ci bokkee nag defe naa ne te dib sénégalais yëngutu ca am loo ca def ci sa côté am nga droit buñ cay dee wax nga wax ci sa xalaat buñ la ko ca laajee joxe la nga gis te ni buñ ko defee mu gën a baax defe naa ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk loolu nga def Amadou Kati Diop ku ne xam la euh, yaa ngi dégg entraîné ay mbër tafaagi bi mu toll ci ay guddeem dëgg-dëgg ko yoroon nekkoon écurie Fass ni mu xëyee sancee écurie Ndakaaru dem fa yor fa ñoom Yaxya defe naa tey suy waxee ci làmb rek voix autorisée la ku ñu war a la yaa ngi dégg kon defe naa la mu wax que ni fédération fa la ñu war a dem wala moom la war a def defe naa war na ko bàyyi xel la ma cay dolli nag man en tant que gis-gis mooy que ni mm, fédération du lu yomb du loo xam ne dañuy xëy xëy def ko parce que noonu ko père Bécaye Mbaye waxee man gis boobu laa ama ah. du loo xam ne rek dañuy xëy xëy dugg ci noonu noonu parce que dafa am ay yoon am lu koy sécuriser am ay texte ak yoo xam ne lépp dañ koy préparer maanaam mbir mu mën a doon soo ci dee dugg te bañ njuumte bu bëri fekk la ca wala ay erreur wala ay réccu mu war a àndal ba nga xam ne bu juddoo des na ko mën a encadrer ngir mu mën a màgg mais nag bu ñu précipité maanaam yàkkamti ba dem ci fédération ci loo xam ne ñorul wala defuñu la mu war a la ñu def ba mu la mu war a àndal pour ko doxal naagis rëccu lañ ci jëlee néew mën a fédération warta am lu war a am la mais na fekk buy am ñu teg ko fi ñu ko war a teg yépp yaa dégg lañ ci war a def ñu def ko bu nit ñi pare ngir def ko bu keroogee bu soobee yàlla pour man bu ñu ko defee war nañ ci mën a jëlee parce que loolu yaakaar naa lu yokk la rek pour man yaa dégg mais actuellement nii moom ak jamono bi ñu toll nag ci contexte bi ñu toll man Babacar gisaguma fédération li gis rek mooy CNG bi fi nekk bu fekkee ki fi nekk day dem bu ñu indee yu bees ñu bees ñoo ñu fexe def fi liggéey bu nga xam ne nii dina raw bi nga xam ne moom la ki fi nekkoon def wala ñi fi nekkoon bu ko defee ci biir liggéey bu jamono yooyu mu am war nañu mën a liggéeyaale nag mbirum fédération liggéey ci fii ak ay at yaa trois ans wala ñetti at jàpp ñu jéem a xool ni ñuy defee pour am fédération boo xam ne kon dina mën a yore làmb waaye lépp rek li ma lax rek bañ a yàkkamti ndax euh, yàkkamti moom wala a ko wax ku yàkkamti yàqul waaw ku yàkkamti ku ne da nga yàqule maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal internet yëpp jàmm barke yonent bi Euh, gannaaw bañ leen dégloo ñoom ñëpp di leen jëfalaat nag bu baax a baax a baax ndax bëgg gi ñu bëgg wasaare ak li nga xamante ne à chaque fois ñoom ñu ngi koy indi euh, mooy ñi nga xamante ne mooy suñu intervenant yi nga xamante ne ñoom ñoo wax ci entre CNG ak fédération mais kàggu mën ni ma ko déggee rek euh, bu ñu nee fédération suñu xam-xam muy quatre-vingt-dix pour cent yëpp kon ni ko waxee rek au niveau Afrique fédération ñoom la ñu am. ndax bu ñu jël euh, exemple dañuy jël ci exemple Gambie ñoom amuñu CNG ñoom fédération lañu am euh, fédération nag ak CNG du benn ndax CNG dafa nekk loo xamante ni muy comité national gestion de la lutte dafa nekk loo xamante ni ah, état moom moo ko fi teg nekk loo xamante ni par vote la dafa nekk loo xamante ni par arrêt la kon euh, ki nga xamante ni moom mooy suñu papa Alioune Sarr nekk loo xamante ni par vote moom moo ko fi teg gars yi nag gis nañu lu dañoo ñëw naan ay eh, nañ ko def par vote par nangam mais am na loo xamante ni ku koy désigner du par vote du par kii li nga xamante ni te ministre bu lay jógee euh, ci li nga xamante ni nag moom mooy fédération moom mën naa mën naa nekk par vote par yi nag mën naa nekk ci li nga xamante ni par écurie ak yeneen ak yeneen ndax gis nga gis nañ ñu bari ki ci mel ni Malick Ngom leeral na ko ñoom nee nañ moom fédération la d'accord am na ay leeral yu mu indi ci fédération yooyu ñëpp dégg ngeen ko ku ci mel ni ki nga xamante ni moom mooy Balla Diouf. moom chaque jour moom it ñu koy remercier moom leeral yi mu leeral moom tamit fédération la d'accord Euh, ki nga xamante ne moom mooy Babacar Diome euh, mooy euh, journaliste Leewtoo moom ñëpp xam nañ tamit moom li mu wax moom CNG bi moom it na d'accord Assane Wala tamit noonu mais man kon ni ma koy waxee rek chaque fois muy CNG muy fédération ñëpp xam nañ ne wax dëgg yàlla làmb dafa nekk loo xamante ni facteur de développement la ndax dem nañ ba benn instant boo xamante ni kenn ku nekk da nga bëgg a def ni lii ci man la jógee te loolu na parce que loo gis am règlement comme que ministre moom moo fi nekk fédération ak CNG CNG moom moo fi nekk ñun ba ñu xamee ba xàmmee ba léegi CNG moom moo fi nekk comme que fédération nag nekk na loo xam te ni moom moo gën a yaatu parce que tamit du question liberté sax mais dina am lu bari loo xam te ni mën nañ koo def ci sport ndax gis nañ li nga xam te ni moom mooy lutte olympique euh, kon Malick Ngom ni mu ko waxee rek euh, nee na lutte olympique bi dina am yeneen ouverture yoo xam te ni euh, dina dina xaw a yaatu li nga xamante ne nag moom mooy CNG am na loo xamante ne duñ ci mën a yaatal ndax loo xamante ne dañ naan la yow yaa fiy toog bokkut ak li nga xamante ni nit ñi dañuy joxe ci li nga xamante ni moom mooy seen xalaat di wax rek ah CNG ak fédération moom lañ indi loon comme thème dégg ngeen ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk euh, ay experts laa leen tuddee ñoom li ñu wax wax dëgg yàlla déggaabul na mais yéen ñu ñuy seetaan li ma leen di wax à chaque fois yéen yéen ñu gën a xam fuuf yéen ñu gën a xam fuuf yéen ñu gën a mën a euh, wax ji di leer leer yéen ñu gën a mën a leeral moo ko dañuy wax rek nee naa ne ku sañ tabat sañ a nangu di leen ramee remercier nag bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla ni ngeen ñu teewee gis nañ ko euh, am na nag ay leeral yoo xamante ni gars yi leeral nañ ko Euh, jarul muy gudd parce que ñoom seeni wax boo leen ko déggee rek di ngeen xam fan lañ féetee mais kàggu bala ñuy tàggoo tàggoo bu du tàqali ko dafa am loo xamante ni ba léegi actualité muy Gris Bordeaux ak euh, ki nga xamante ni moom mooy euh, Gaston Mbengue combat bi nga xamante ni moom moo waroon a dox dégg nañ Gris Bordeaux li mu wax démb nee na désormais beneen promoteur bu bëggati ñëw mën naa ñëw tëgg combat am mais sauf Gaston bàyyi nga ndax cin bu naree neex su baxee baxee xeeñ ndax mënul am deux adversaires loolu dinañ si ñëw dinañ ci gën a leeral mais comme que yéen di ngeen tàmm Wassare wax dëgg yàlla chaque jour di ngeen di bëgg am ay information moo tax nag ñu ñàmbasal ci leen loolu loolu mais am nañ ay yeneen yoo xamante ne dañ leen ko indil ci camp Gris Bordeaux ak Balla Gaye ak Père Gaston xanaa nag euh, di tàggoo tàggu bi dul tàqali ko di leen béyewaat bu baax a baax a baax di béggee ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy suivre sur Wassare Lamb parce que yéen kenn du yéen si ñun dañ def lépp loo xam te lu ñu mën ak lu ñu mënul rien que pour vous faire plaisir di ko bigee waat nag bu baax a baax moom kàggu moom moo nekk ci régie moom mi nga xam te ni chaque jour du sonn si ñun mi ngi ñuy mi ngi def lépp pour rien que bi jaar yoon ñu ngi koy remercier bu baax a baax borom ñaari galon yi di ko bigee waat bu baax a baax moom Mouhamed mi nga xam ni moom it euh, ku baax la moom it day jàpp ci lépp ak ki nga xam te ni l'infatigable Adama ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom borom si ak suñu séeréer bu naaj bi Basirou Diouf kon ni ma koy waxee rek naan la kenn di yow di jox gaa yi di daje ba suba incha allah d'ici là portez-vous bien merci beaucoup.